waaye ku ne war naa xam la la jëriñ ku ne war naa xam ne lay lox waaye mënoon nañoo sóobu yoon yàlla di jéem bëgg lu baax te yàlla tax mais xañ ci sëriñ Tuubaa ba xam kan mooy sëriñ Tuubaa loo gën a xañ gën koo xam gën koo nangul gën koo fas yéene liggéeyal nga góorgóorlu leen góorgóorlu leen bu baax te xam a nga leen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 yu jot lañ mu mu ñëw ko mu jël ko ñaw ko ba mu jekk ba mu jot mu sotti ko ci kaw yu bi alayhi salaatu salaam moo ma ne yaa rabanaa yow sunu borom woo naa la zalli yàlla nga dolli xol salaatan dolli goo xam ne saami la aji làmboo la li salawaati ñeel julli yi li salawaati ñeel salawaat yi kullihi na yépp bu benn génn waaye kaami la goo xam ne aji mat la xoolal gi salaatu rek xam nga ne Amadou Mokhtar ni sëriñ bi di jullee ci jëmbi xasida gi bokkut ak na muy jullee ci yeneen xasida yi lii moom geneen la yow suñu borom na doon dolli xéewal xéewal goo xam ne aji làmboo la xam nga luy làmboo mooy mboolum ku mos a julli ci yonent bi ak ku mu mën a doon rek mboolem julli goo mos a julli maanaam julli gi na nekk ci biir ahmadu mox niyam salawaat yëpp la wax waaye nag ñoom ñëpp buñ daje ci benn pénc salawaat yu nit ñi julli ñëpp ahmadu mox niyam na féetee kaw maanaam tëj ko doon loo xam bu fekkoon dañ ne ab jiré moom lañ ko daamina bu fekkoon ab niire buñ tabax la moom lañ ko lesoo fa tabaarakallaahu kon ahmadou Mouhniyane mboolem salaatu ala nabi boo ko xamee boo ko xamul boo koy jàng salaatu ala nabi yëpp yaa ngi di jàngale ci biir ahmadou Mouhniyane moo tax mu ne yaa rab naa yu suñu borom sëlli yàlla nga doole ko salaatu doole xéwal goo xam ne zaami la aji a la mat la maanaam na leen féete kaw ñoom ñëpp kon sa ahmadou Mouhniyane xasi la goo xam ne bu yéemin waaye nag salaatu gi maa salaamin na ànd ko mucc laa yasaalu goo xam ne du dëñ mukk naam yaa du dolle ko maanaam jëmmi salaatu salaam gi du dëñ mukk di dolle ko du dëñ mukk jamono ji ne day gën di dolle nga xam ne jamono ji ne day gën di sotteeku ci jëmm yonente bi alayhi salaam kon jëmm yonente bi bu fekkee jànguñ ci Ahmadu Muxtaar moom da koy jàngal boppam da koy jàngal boppam ku jàngut Ahmadu Muxtaar moom jëmm yonente bi da koy jàngal boppam ndax jamono ji ne rek day dolleeku ngir lan salaatu salaam gi sëriñ bi di ko jël di ko jóor ci kaw jëm yonent bi alayhi salaatu moo tax ma ne salaatu goo xam ne ak salaam goo xam ne laa yasaalu du dëñ mukk mukk nga xam ne du mos a dëñ yaa di dolleeku rek waaye nag mu doon salaatu goo xam ne xaamiyaa aji xaar la ma mi maa yëdduru nii ci lépp loo xam ne dana ma lor jihaati ci samay wàll lépp lu bokk ci man nekk ci sama wàll nekk sama biit kër nekk samay dëkk nekk samay taalibe nekk samay xasaayit nekk samay juma salaatu wasalaam gii mën a leen na ma xaar ba nga xam ne kenn du mën a lor sama loolu xaamiyaa na doon loo xam ne damay xaar mi maa yëdduru min ci lépp lu may lor jihaati samay wàll lépp lu may lor lu mën a ñëw sama wàll ngir bëgg maa lor rek bëgg maa teg fitna salaatu wasalaam googi na ma ci xaar kon salaatu wasalaam gi war ngaa xam ne kon mu nga mel ni jëmm ju taxawee amee ak jaahitam wala ay guntu wala ay fetal nga xam ne ku bëgg a ñëw ci kër sëriñ bi bëgg a lor ñooñ sëriñ bi wala bëgg a lor sëriñ bi salaatu salaam gi moo lay diit bal ba moo lay rey ci moo lay rey ca saasa nga dee kon jëmmi salaatu yi dafa mel ni da koy wutal jëmmi mbubu mu nekk ab jàmbaar joo xam ne xare rek moo ko tax a jot nga xam ne ku bëgg a ñëw rek ngir bëgg a lor ci sëriñ bi wala fitnaal ko rek salaatu salaam gi moo lay rey waaye mu ne salaatu ko xalaa xaliilika yàlla na nga ko sotti ci ki nga xam ne mooy sab xarit bi alhab alhabibi mooy sab soppe waaye nag habdika mooy sab jaam kon yonent bi xaritub yàlla la soppeb yàlla la jaamub yàlla la te lépp day ñëw ci biir alxuraan ba ci jaam sunu borom gis nga ci balaa place yu tedd yëpp jaam la koy tuddee fa awha ila habdi ma awha subhaanallazi asra bi abdi li ko yàlla tuddee ci baatab alhabdu ci biir alxuraan rek lu bëri bari la moom jëbu yonent bi alayhi salaam kon dafa doon xaritub yàlla doon soppeeb yàlla waaye nag habibu kulli muslimin la mooy soppe bépp julit waaye habibullaay soppe yàlla la ñëpp yàlla moom la ci gën a sopp te suñ tubaa ne ne a ma seedeel ne gannaaw yonent bi yow laa ci gën a sopp sahida li rabbi bi annahu ahab lii tiwaahu wa nabi baxdu ahab yàlla moo seede sëñ tubaa ne sëñ tubaa ne ne yàllaa ma wax ne ma ahmadu mbooleem ñëpp ñëpp ñëpp yow laa ci gën a sopp gannaaw yonente bi sallallahu alayhi moo tax mu ne salaatuka ala xalilika yàlla na nga ko soppi ci sab xarit bi alhabibi ki nga mooy sab soppi waaye xabdika di sab jaam ahmadina mooy sunu ahmad mi almuxtaari mooy ku ñu tànn ki waaye kookee nuuri jundika mooy leeruk say soldaar yi leeruk say armée bi mooy armée bi yàlla bi nga xam ne dañoo bari ba kenn xamut nu ñu toll wa maa yaxlamu junnuuda rabbika illaa huwa kenn xamul nañu toll ñoom soldaar yi ku dul yàlla te nee ne fu ñu jàngi sama xasaayid yi dañuy yëngatoo di bën ngeen di kontaan te samay xasaayid yi rek la ñuy wéyantoo ñoom malaayika yooyu moo tax mu ne kooku nga xam ne mooy sunu Ahmad nga xam ne ñoo ko moom yàlla moo ñu ko yónni ci ñun waaye yónent ñoo ko doon déclaré seen nit ña ba yàlla jox ñu ko te joxut ko booleem yeneen xeet waaye ñun rek la ko yàlla jox kon nag loolu doy na sant yàlla waaye nag mooy ku ñu tànn gi ndax mooy ku ñu tànn ca tànnwaay bi ndax li kulli min jumlatil axyaari martabatan waaye laakin ma ahmadal muxtaaru muxtaaru waaye nag sahida kullu sayidin muxtaaru bi am na ahmadu huwal muxtaaru koo koy sëñ tubaa xam ne day jël jëm na ma la lan yu basaraa ku njort na yonent bi niroog naa ku ñu jur rek nee na kookee xaw ma kan waaye adduna yàlla du ko ci bégal yowmal xiyaam kenn du ko bégal du tàbbi aljana ku njort rek la wax waxoon na sax ku def yonent bi ne mbindeef la waaye ku njort na yonent bi mbindeef la képp képp rek loolu dal na la moo tax mu ne mooy leerug mboolem armée bi nga xam ne ci leeram gi ci lañ sàkke leerug malaayka yi ci lañ sàkke lépp lu yàlla bind ndax leeram ga ci la yàlla li lenn ci leerug yàlla ci la jël sàkk ca jëmmi leerug jëm yonent bi alayhi salaatu salaam lépp loo gisati nag nga xam ne dañ naan lii ci albariyati la bokk ni muy mbindeef yi lu ñu bind la loolee ci jëmmi leer yonent bi alayhi salaatu salaam eh, ca la bay ko mu tamu ni salaati ki wa aali yi na ñëw ba ci waa këram moom yonent bi wa bi ak saaba mi wal taj xali te na nga def yow yàlla gis nga jamiha xidmati waxul yàlla na nga def de na nga def jamiha xidmati mbooleem sama liggéey bii na nga ko def riddan muy ngërëm muy sa ngërëm waaye nag tan jaxali tamu doon ko waxut sax yàlla na ko doon de déedéet xam nga Sëñ Tuubaa moom ku yéeme la waxut ne yàlla na ko doon sax waaye dane na nga def sama liggéey bii te muy xasida gi te muy julli yi muy julli ci bi ak di ko tagg na ko def muy sa ngërëm waaye nag mu doon ko waxut sax yàlla na ko def de déedéet waxut yàlla na nga ko def waaye def ko mu doon ko xam nga sëñ bi moom kenn du moom ma tamit wal tajxali na nga def jami a xidmati mboolem sama liggéey bi riddan muy sa ngërëm waaye nag tan jaxali mu doon ko sax nag mu loolu mooy li gën ba tey mu yaa rabbana yow sunu borom salli yàlla nga dolli ko salaatan dolli xéewal goo jaamiha aji dajale la kanaa loolu jeex na kulla salaatin bépp salaatu boo mën a gisate rek ku ko mos a julli ak ku ko mos a bind ak foo ko mën a jëlee waaye nag xaamiha aju not la moom salaata gi saata xëxërin koo xam ne borom ak noteel la moo xam muy buur wala nit yi adduna kuy mën a fitnaal nit rek te man a jóg salaatu gii na dajale mboolem salaatu yi waaye bu dajalee mboolem salaatu yi na doon salaatu koo xam ne day not koo xam ne day noteel kuy notal ci adduna rek koo kenn ki notal nga xam ne ak ku mu a salaatu gi mën naa iblis waaye ak i bokk gaayam nga tax man yaa rab naa wis sëli yàlla nga doole ko salaatan dolli ak jàll kuy notal rek salaatu gi da koy not te loolu waxoon na ne salaatan saamila li salawaati kulli na kaamila fii mu ñëw jaamea kulla salaatin salaatu xaxrin xaamea kon xam ne suñu tubaab mooy ku kenn xamul waaye nag salaatu googu maasraami na ànd ko bëli wóolu waaye nooru woo leer na ànd ak leer ne laa yan xatif du dog mukk mukk mukk ba abadan ba abadan leer gi leer gi mi ànd ak maanaam du mos a dog duñ dem ba yàgg ñu salaat ko fii la yem na nga ko sotti foo ko jëmee sëñ wa mu ne waxuma nga sotti ko ci man déedéet xalal la fii na nga ko sotti ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mun xatif aju dog la di ci darajam asaay lor ki nga xam ne mboolum lor bu ma amee woon dog na teqali ko ak man toujours du ñëwti ci man waaye ndaa nag kooku jëmmi salaatu gi na doon ak leer goo xam ne du doog mukk nga sotti ko ci kaw kii nga xam ne aji doog la ci dara jaam sama lor nga xam ne man amatuma lor amatuma benn lor kon nag salaatu ki doon ko sotti ci kawam ñu ne ko kookoy kan mu ne Seydina mooy sunu sang bi Muhammadin turó mooy Muhammad wala ali salaatu gi ñëw ba ci waa këram wa sox bi ak saabaam yi fii la xaali fii ci ma aali ak ëllëg yawmal xiyaam nga xam ne kon salaatu gi fii lay nekk waaye nag du yem waaye nag day dem ba ëllëg yawmal xiyaam ba tey mu ne war fax jamiha salawaatil yawma lakka wa jënnib niil hada walaw ma mu ne yow suñu borom war fa yàlla na nga yëkkati jamiha salawaat yi mboolem samay julli yi al yow ma tey jii lakk jëmee ko ci yow nga xam ne dootoo ko wàcce mooy nangu ko rek waaye wa jënnib nii na nga ma teetal wa jënnib nii na nga ma soril alxedaa noon yi samay noon walaw maa ak yeddaange yow yàlla sama salaatu yi na leen yëkkati bis ni ki tey jëmee ko ci yow nga xam ne mooy nangu na ko rek kon Ahmadou Moukhtar loolu rek tegtal na ci ne yàllaa ko nangul boppam yëkkatil ko boppam muy liggéey bi nga xam ne dafa bokk ci eh, jëf yu baax yonent bi ndax waxoon na ko bi xiddimin du mat ilaa awtaasi kon yàlla da ko yëkkatil boppam nga xam ne lu mu nangu la dafa bokk ci jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma ne na yëkkati samay julli yi tey jii may wax ak yow jëmee ko ci yow waaye nang ma soril noon yëpp samay noon yëpp nañ ma sëri bu ma kenn jege waaye nag lépp lu yeddaange wala loo xam ne bu ci nit demee ñu yedd ko ca wala nit di rek lu mën a doon rek sëril ma nooni sëril ma yeddaange yaa rabbana salli salaatan haila bayni wa bayna kadratin jaila yaa rabbana wi sunu borom ba tey maa ngi lay woo zalli yàlla nga doole xewal salaatan dolli xewal goo xam ne haila mooy aji dox la moom salaat gi mu ngi bay ko ci baala xaala guy tekki diggale na mooy lu dox diggante nit ki ak mbir xam nga léeg-léeg boo jëlee nit ki jël ak ciiraay doxale ko loolu la ñu xaala mooy loo xam ne dafa dox diggante nit ki moo tax salaatu wasalaam kon dafa nekk jëmm joo xam ne dafay dox diggante ak sëriñ bi lépp luy xiti nax nax ba nga xam ne du yegg ci ci jëmmi sëriñ bi moo tax mu ne sëlli yàlla nga dolli xel salaatun dolli xewal goo xam ne xaa ila aji dox la bay nii sama diggante moom jëmmi salaatu gi wa bay na kadaraatin ak diggante lépp luy nax nax waaye moom salaatu gi jaa ila aji dàq la lépp luy nax nax da koy dàq day dox sama diggante ak lépp luy nax nax ba du yegg ci man waaye nag du yem ci dox diggante ba waaye da koy dàq moom jëmi salaatu nga xam ne lépp luy xëy na ko def ak loo xam ne bokkut ci man wala man na maa yàqal loolu lépp loo xam ne neexul ma te lu ma neexut moo neexut yàlla li ma neex mooy li neex yàlla lu ma bëgg moom la yàlla bëgg lu ma saf moo saf yàlla surtout la ci saa al ilah wal ilah ya saa umansientu bila durin wala kon nag salaatu salaam bi na doon salaat goo xam ne xaa aji dox la bay nii sama diggante wa bay na kadrate ak diggante lépp luy xeeti nëx-nëx nga xam ne jëf june bu ci nëx-nëx nekkee rek mooy yàqu na waaye nag jaa aji dàq la ko mu nga xam ne lépp luy xeeti nëx-nëx ak lu bokk ci man rek da koy dàq waaye nag salaatu goog maa salaamin na ànd koog dolli wóolu kon bee dafa waxoon ne day dàq muy jaa ila waaye nag bii nag dolli wóolu gi jaali bin na nekk salaatu goo xam ne salaatu salaam goo xam ne jaali bin aji bijjën la ma aji ñoddil la ma lii ñeel ma maa lépp loo xam ne uyi bëgg naa ko nga xam ne léegi salaatu gi lu ma mën a bëgg rek salaatu gi moo ma koy ñoddil jëmmi boppam nga xam ne amado max neen kon xasida bu ñëwee la jëmmi salaatu yi rek mooy ñoddil Sëñ Tuubaa lu mu bëgg kon nag yow mi jàngi xasida gi na la wóor ne le boo bëggee dafoo ak jalbu Ahmadou Mokhtar boo tëqoog moom da nga tàggoog lépp luy xeeti dafon waaye da nga dem ba yàlla sax moo lay ñoddil boppam di la dàqal boppam te doo dàqal sa bopp kon nag jaali bin koo xam ne aji ñoddil la lii ñeel ma maa lépp loo xam ne uyi bëgg naa ko waaye nag musax siyaan mbir moom aji dàqal la nu li naa mu jëm ci kudul ñun maa lépp loo xam ne laa nu hib déen ñu koy bëgg lu nu bëggul rek loolu jëmmi salaatu ko moo koy dàq sëral na ko nga xam ne kon jëmmi boppam ji la ci jublu waaye ak képp ku ànd ak jëmmi sëriñ bi na la wóor na la kon diggante dafa ak jalbu boo ñëwee ci ahmadu muxjeen moom mën na la ko defal ci lu gaaw gaaw yàlla na yàlla defal